Assalamualaikum, eh, warahmatullahi wabarakatuh. Mboki Senegal, mbokki ngi leen di nuyu Ñu ngi leen di nemmiku bëggoon def waxtaan bu gatt rek. mu jëm ci ànd sàmm jikko yi ak journée bi nga xam ne moom lañ dëgmal ñu wax ni ànd sàmm jikko yi mbootaay la goo xam ni ci ndigalu kilifa yi lañ ko taxawal muy mbooleem turuux yi nga xam ni ñoo nekk fii ci Sénégal ànd ko ak mboolem association islamique yi nekk Sénégal ak mboolem ay mbootaay yoo xam ni ñoo ngi yëngu ngir jikko ngir lu baax ngir sàmm suñu ndono ngir sàmm suñu mbatiit ngir gën a yëkkati tedd nga Sénégal ak sénégalais yi loolu nak ma ni ko sosé 2016 ba légui dañu dañu nu di liggéey ci rom kilifa yi ak ci jëmmal leen ak ci wane am solo fi mo waral pétition bi nga xamné ko processus bi entamé nañ ko Sénégal depuis 2016 mu jëm 2026 ngir bëgg fee yaatal lu bon ci ndigalal Nations Unies booba ak léegi dañu ñu di ci jiital kilifa yi di ci waxtaan ak ñoom ak it di wane ni li ñuy def lépp ci seen ndigal lañ koy def ñoom tamit ñu nangu ko muy xalif généraux yi tàmbalee ci ñoom ba noppi ak association islamique yépp waaye tamit ak clergé bi bois sacré bi ak mboolem ñi nga xam ni yépp Sénégal ñoot na leen ëllëg réew mi aussi ñoot na leen loolu nag may fàttali ni mooy ànd sàmm jikko yi noonu lañ ci àndee ak syndicalistes yi noonu lañ ci àndalee ak mbooleem organisation yi nga xam ni yépp ñoo ngi liggéey ba léegi maa ngi jóge ci rencontre boo xam ne ñoo ngi ko amoon ak onkav di nuyu au passage euh, président onkav muy Amadou kan kon loolu mooy am sa ànd sàmm jikko yi ànd sàmm jikko ba mu sosoo ba léegi it man maa ko jiite man Ababacar Mboup ànd sàmm jikko yi benn kàddu la am kàddu gi tamit man maa ko yore nga xam ni kon lépp loo xam ni keneen wax na ko te ñu jàpp ni ci ànd sàmm jikko yi la bokk moo xam am na ci responsabilité moo xam amu ci responsabilité wax jooju moom la engagé waaye engagé wul ànd sàmm jikko yi loolu laa bëgg a mu leer naññ ni ànd sàmm jikko yi li muy dox nit ñi xam nañ ko kilifa diine yi ànd nañ ci kilifa aada yi tamit ànd nañ ci kon loolu su xisee leer ba ñu xam ni ànd sàmm jiko yi li muy dox lu leer la dafay mel ni nag yàlla fu mu sampe dara seytaane bëgg faat duut duutal dara fu yàlla sampe seytaane bëgg a duut duutal dara loolu moo waral mel na ni sunu journée bii ñu dëngal ñàkkul ni bari nañum déranger tàmbalee ci Nations Unies tàmbale ci état yi nga xam ne c'est des états pro-gays tàmbale ci ay sociétés secrètes tàmbale ci ay ONG yoo xam ni ñoo ngi yor alal ju bari di am ñu ñuy jox xaalis tàmbalee ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bu ñu sanoon journée bi du doon une journée de réussite waaye ma leen di wax yéen sénégalais yi loo xam ni Serigne Mountakha Mbacké ànd na ci joxe ci kàddoom joxe ci signature am loo xam ni Serigne Babacar Sy Mansour ànd na ci joxe na ci kàddoom joxe na ci signature loo xam ni Serigne Mouhamadul Mahi Niass ànd na ci joxe na ci kàddoom joxe na ci signature am loo xam ni Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass ànd na ci joxe na ci kàddoom joxe na ci signature am loo xam ni sëriñ Abdourahim Seck boroom cene ba joxe na ci kàddoom joxe na ci signature loo xam Cheikh al Bekkaay al Bekkaay xalifa général des Khadria joxe na ci kàddoom joxe na ci signature loo xalem ni xalifa général De Layènes à travers son porte-parole joxe na ci kàddoom joxe na ci signature am man de yaakaar naa ni loo xam ni al Wahda joxe na ci kàddoom ak signature am ni Daarul Istiqaama na ci kàddoom joxe ci signature am ni Al Falah joxe na ci kàddoom joxe na ci signature am loo xam jamaatu Rahman joxe na ci joxé nañ ci seen kàddu joxé ci seen signature ak mbolém yeneen mbootaay yi nga xamni yépp mënuma ko lim muy Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal té imam Dame Ndiaye ko joxé ci seen kàddu joxé ci seen signature lo xamni agnos association bi jiite imam yi imam Moustapha Gueye jité joxé na ci kàddoom joxé na ci signature lo xamni euh, la communauté lébou. à travers jaraaf Youssou Ndoye joxe na ci kàddoom joxe na ci signature loo xam ni la collectivité li lébu à travers imam Samba joxe na ci kàddoom joxe ci seen signature ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni dana xat lool ci jotaay bi ma lim seeni tur muy une première au Sénégal dafa mel ni loolu ñi mu déranger bari na dafa mel ni ñi bëggul mu réussir bari na waye japp naa ni xalif généraux yi ci Sénégal lu ñu maase ànd ñoom Yalla yàlla ànd na ci ab yonentam and na ci ku ci àndul nak loola yàgg caag may wax ni journée du 23 bi ñu dëgmal du journée bu ababakar mbou du journée bu and sàmm jikko yi c'est la journée du peuple sénégalais c'est une journée de refus bisub mbagn la bu ñuy bañ ak mbon kon kep ku bëgg lu bon say bo nga afficher wu jëm ko yaq wala nga jëm ci wax dara mbaa nga jëm ko gàkkal waye kep ku bëgg lu bax da nga jéem japp ci bis bi deugëral ci ndax Sénégal dafa am trajectoire bo xam ci la jaar trajectoire bobu nak c'est très important ci ñu fatali ko tay ci histoire récente rek lay wax ñun suñu mag ñi tambalé ci Alaaji Abdoul Aziz Dabar sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak ñi ñu andalon Cheikh al Islam ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen def nañ ay taxaway yëkëti seeni kaddu yëkëti seeni tank la wax seen jëm dox ci ay mbir te mbir soti wul te ñom ñëpp andon nañu foyer religieux nek Sénégal yëpp muy le code de la de la famille terewul dañu ko imposer di naxaté te naxata yoy jógu fiñ ci batay ndax lëtteey won principe bobu ak système ba mi ngi Sénégal batay kon ñun suñu gisee ni ñoo ngi wayefal suñu kaddu kilifa te ñun ñu bëgg ñëpp xam ni ñun suñu kilifa rek lañ am te lu leen di dëgëral rek ci leen di nekk ñu daal ni kon nañu taxaw tem ba suñu kaddu kilifa yooyu ñu xam ni ñom ñoy borom réew mi ñu saxal ko te dëgëral ko en 1995 ba 2010 am benen initiative bu ci à travers CIRCOF qui a proposé un code de statut personnel un code musulman pour xamni religieux et ak association islamique ñoko ñoo liguey waye malheureusement bañ ko assemblée nationale tamit dañ ko sanni ci àll ba ñu ni nak képp ko xamni yaangi faible lo suñu cadre kilifa yaa ngi néewal doole réew mi te yaa ngi compromettre l'avenir de ce pays là képp ku ko mën a def ak ci forme boo ko mën a defee nag ñun xamal ni ànd sàmm jikko yi moom ñoom ñu ñoo ngi sa kaw dafa fekk ni kenn mën a tërandoo ñaari xar ak ñetti xar ak ñeenti xar waaye ñun luy dooleel suñu histoire suñu mbatiir suñu euh, démb loolu ci la ñuy xëy ci la ñuy gont kon nag lii nga xam ni ñoo ngi ko entamé te mboolem kilifay réew mi ñi fi baax ñëpp ànd nañ ci ñi bëgg lu baax ñëpp ànd nañ ci ma ni ku ci àndul am nga ci sañ-sañ am nga ci droit waaye nag ñu xam ni góor jigéen yi ñoo ci dul ànd ak ñii dooleel ak ngóor jigéen góor jigéen yi ak ñiy dooleel ak ngóor jigéen ñoom ñoo dul ànd ci suñu bis bi ñoom ñoo dul ànd ci bis bi ñoom ñoo koy jéem a saboote loolu mooy li am waaye ala xaal ñun Nyongi and yalla ak ub akub yonentam ñongi and ànd yalla ak ay ay yonentam ñongi and yalla ak ay waliyum ñongi and ak yalla ak mbollem ku bëgg lu baax te bëgg réew mi te bëgg ëllëgi réew mi loolu inshallah allah fi lañ tollu ñu wax ni le 23 suñu ko daté nañu xamné raay l'islam dana laal suuf li tax ma leen raay l'islam dana laal suuf wax ju leer la bëgg wax nit ñepp ñu xam ko le 23 vie bu le peuple sénégalais échoué kep ko xamni si mobilisé wo ba le 23 ñu raté ko nañu xamni bu l'islam daa ci le principal responsable ndax la ñun le peuple sénégalais c'est un peuple duma wax majoritairement croyant c'est un peuple croyant tout court ndax muy musulman muy chrétien ñep ay croyant lañu kenn ku ci nek amna lo kon ay croyants kese ñoo dëkk ci réew mi dama ni réew mii bu fekkee ay croyants rek ñoo fi dëkk ñu mën a seetaan mboolem sunu croyance loolu la yanu jàngale woon ñu mën koo delloo ginnaaw ba saxal fi loo xam ni safaanu loolu la c'est parce que seetlu ko waaye ñoo ngi màbb yuqub diine yi ñu nekk ñoo ngi koy màbb te ñun ñii ñoo koy màbb te ñun ñoo koy dëgëral bu ñu fàtte ni tout ce qui se fait au Sénégal est fait au nom du peuple sénégalais pour le peuple et par le peuple. Tout ce qui est fait au Sénégal, tout acte posé au Sénégal par les gouvernants, tout acte est fait pour les Sénégalais, par le peuple, pour le peuple. kon bu faites ni Sénégal gi nga un peuple croyant la lañ fi daganal nan Vous bu qu'un ni Sénégal gi lañu daganal ndialo

ñu jox la ndigal ak sañ-sañ bi nga dem jaay sa bopp waaye at mu nekk indil nga fay lempo jox ñu ñu lekk ñun wala ñu utiliser ko ci beneen leneen luñ soxla ñun askanu Sénégal muy benn buy màbb diine te pourtant loolu am na ci biir réew yi kon ñoo ngi màbb diine ndànk-ndànk mais au nom du peuple sénégalais waxuñu déedéet laay inamal xamru wal maysir ku ne xam na ni laaye boobu moo boole tere sàngara ak lan tere carte carte et pourtant c'est au Sénégal la ñu créé benn domaine d'exploitation muy une entreprise nationale boo xam ne carte lañ fay def muy la loterie nationale sénégalaise l'ONAS l'ONAS boobu fi mu ne ñëpp a ko kuy sénégalais bokk nga ci ñu ko kon ñun taxawal nañ entreprise bo xamni da fay défier l'ordre divin muy ndigalal yalla biñ ko taxawalé lan lañ ci teg fimné ñong ne ñoo ca yaxantu lu ca génn ñu dellowaat ko ci bir askan wi ak diko def ci soxlas ak askan wi kon au moins ñaari yeuf gi ni yo xamne yalla téré yàlla na ko bañ nañ ko wa Sénégal en tant que peuple bu souverain taxawal ko jëmmal ko défier l'ordre divin défier yalla té pourtant bëgg nañ kenn du ci wax kenn ku ci nekk ñepp sëgg ñu ni bu ci kenn wax kon buñu sétané depuis 2016 ñu inscrire ak ak yelefu góor jigéen ñi ci constitution bi muy les droits d'autrui ñu inscrire ko ci tambli di doxal agenda bobu jëm 2026 sénégalais yëpp taxaw di seetaan ñun ñu woote journée pour contrecarrer loolu pour bañ loolu pour naqarlu loolu dama ni képp ku ci àndul yaa ngi dooleel ak mbon ci réew mi yaa ngi bëgg ci réew mi tey bu ñuy lim ñi bon say ñu boole la ci ndax ñun bañuñu lu lu yàlla bañ ab yonentam bañ ko li ñu donn ci li ñu def ci ñun ak fa ñu roote mbon nga nga xam ne bañ nañ ko ñun loolu rek lañuy bañ waaye lu baax li nga li nga xam ne def nañ ko ci ñun loolu rek lañu bëgg fi mu kon bref lii rek laa bëggoon a wax ñu wax di ànd sàmm jikko yi ne nii mêlé de près ou de loin ci luy saboote walla muy gàkkal walla muy wax ci kenn dara dara dara d'ailleurs bu ngeen suivre ñun suñu débat sax ak suñu suñu suñu posture ba ci góor jigéen yi ñuy wax ni bëgguñu ñu yaatal leen fi duñu joxoñ baaram sax ak góor jigéen ndax ñun dañu xam jox dayo doomu aadama waxuma la nag suñu kilifa yi nga xam ne amuñu loolu ñoom kon ñoo ngi wax l'opinion publique nationale et internationale ni ñun ci kilifteef la ñuy dox suñu kilifa lañu gëm ñoom lañu bëgg ñoom la ñuy kaweel waxtu wu ci ne barki démb altine dem naa xalifa Medina euh, lew na ak xalifa Medina kenn ku ci nekk recevoir nga ak délégation bi ma àndaloon ñu jóge fa fanaani Touba. gisé ak njabootu serigne bi bañu fa jógee le mardi dem nañ ndiasane la khalife recevoir ñu ak njabotam ñu jógee fa dem ci serigne Babacar Sy Mansour mu recevoir ñu presque plus de 2 heures de temps wax ni bis ni ki tey sëñ Babacar Sy Mansour wax ni bis ni ki tey compté leen ma ci sen bir man and sam jikko yi laa bis ni ki xam len ni man and sam ci la bok ñu fa dem cene ba serigne cene ba wax fa discours bo xamni ñëpp joy seen yaram dafa daw kon ñun ci loolu lañ dox suñu kilifa yi lañu fonk suñu kilifa yi lañu yëg suñu yi bëgg ndax am wala bëgg ak revendiquer rek ci lañ ko sénégalais aussi mooy li ñu fiy def lépp mi au nom du peuple sénégalais lañ ko def bëgg Nations Unies comprendre aussi véritablement yàlla mi bind asamaan ak suuf ak li ci diggante bi daf ko bind ci diversité diversité boobu nag moo tax du ñu mën a nangu ñun kenn ñëw di ñu imposer sa agenda ak sa gis-gis uniformisation boobu ñun Sénégal nee nañ déet duñ ko nangu li war a nekk te war a nekk mooy France am nañ seen démb am nañ seen i ngëm-ngëm états am nañ seen démb am seen i ngëm-ngëm Australie am nañ seen démb am nañ seen ngëm-ngëm waaye Sénégal gii ñu tuuti. ñu ñàkk ñu suñuy der ñuul moo ci yem waaye am nañ suñu démb am nañ suñu gëm-gëm kon li mën a nekk mooy ñun ñëpp ñu daje ci pinc mi nga xam ni mooy àdduna kenn ku ci nekk li nga ba li nga la nga am nga indi ko ku ci nekk xoolal sa bopp ba tànnal sa bopp la nga ca gis lu baax looy jël ca keneen nga jël ko dolli ca la nga amoon keneen ku gis ci yow lu baax jël ko dolli ca la mu amoon waaye nag du ñu nangu kenn di ñu lu bon ci réew mi duñu ko nangu tey duñu ko nangu it ëllëg wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.